seen majorité bi dafa fragile et que mën na soppeeku parce que aussi 54 pour cent neex na au premier tour mais marge bi taxu koo am solo. 5 pour cent moo tax ñu ñu mat 50 c'est 54 pour cent des 7 millions de Sénégalais qui sont dans le fichier électoral. Mm -hmm. euh, en face tu as 46 pour cent qui n'ont pas voté pour toi. qui est une majorité assez hétéroclite yoo xamante ne c'est vraiment des gens qui ne se sont pas laissés emballer. Mm -hmm. donc loolu. dafay dafay dafay. ils ne sont pas laissés emballer ça veut dire quoi ça que le choix qui était on nous a voulu vendre une idée benn xam ne le choix était binaire ou da ngay far fii ou baaxoo ou da ngay far fii ou da nga bon ou da nga far fii bëggoo Sénégal. Mhm. et ce discours là a marché. rappelez-vous bi ñuy dugg ci bi président Ousmane Sonko di génn dafay fekk ay polémiques sur le franc euh, sur le franc CFA ainsi sur le programme. alors que une semaine avant on avait présenté le programme du PASTEF en nous disant que plus de experts et quelques ont travaillé dessus ainsi de ah, mm-hmm. mu génnee lu mu wax dafa ne ah, attention euh, programme bi xëy na engagé wuñu parce que ñun ñi nekkoon si ñu ko lire mën ñu ko corriger parce que dafa amoon ay difficultés donc il prend le projet il pousse mu ne Sénégalais yi Macky Sall dootu noonu mm-hmm. léegi su kuy suñu noonu Amadou Ba mooy mm-hmm. danger parce que il est dangereux à à faire le regard le combat il est entre le fait que Amadou Ba ne soit pas le successeur de Macky maintenant les autres qui ont voulu exister pour dire que élection yi du élection yi sanction élection choix la regardez les profils regardez les hommes regardez les parcours ñooñu ils se sont pas fait entendre donc ce qui fait que aujourd'hui on est arrivé à la situation dans laquelle on est la coalition Diomaye moo gagné. Mm-hmm. comme ni ma ko waxee la plupart des gens son allés là-bas parce que ñu gëmoon ni coalition boobu mooy mooy gagné quel est leur leur leur poids électoral. Mm-hmm. Euh, à l'avenir qu'est-ce que ça va ça va donner est-ce que le phénomène. de de de congruence autour de la personnalité de Ousmane Sonko va marcher encore des années peut-être pour les législatives ça va marcher mais est-ce que bu ñu demee élection locale c'est ça la réalité des appareils politiques déjà da ngay xool.